الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وشات كل إله الفرد والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره min xayri shirkin wala xishin wala katani alhamdulillahi rabbil alamin ala muhammadin man bi xayri lbishri akramani usni ala allahi wal ikrama basharani wa kana lillahu bitabshiri wal amani bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk julli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee sun borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey santaat a Cheikhul Xadim leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan Sëñ Tuubaa si Muhammadul Muntaqa suñ borom dolli ko fee yàggal dolli ko ak wér ba mu àggale mboolem ay naalam àggale mboolem ay yéeneem ci lislaam ci yoon wi ak ci jullit ñi <coughs> di ko ñaanal njabootu Sëñ Tuubaa gépp waaye di ko ñaaral sunu bopp nu taal bi Sëriñ Tuubaa yëpp nu desewaat seen émission xam sa diine bi nga xam ne miin ngeen ko fii ci seen télévision Lamp Fall eh, muy am ajuma bu nekk ci waxtu wi 17h30 jàpp midi ñu di leen ndokkeel bu baax a baax xam nga ñoo ci tomb boo xam ne ba tey jeexutoon muy tomb tuub tey di ñetteeli émission ngir mottali bunt boobu laata ñu dugg ci istixfaar bi jéglu ndax tuub ak jéglu day ñaaru jege lool te bokkuñu <coughs> dama ta xàmmee waaye dañ ko leer ci kanam boroom xam-xam dañuy wax ne tuub warugar la ci bépp bàkkaar bu mën a doon bàkkaar bu nit ki jëf rek tuub warugar la ca su fekkente ne bàkkaar bi day dox diggante jaam bi ak borom subhaanahu wa taala tooñ gi jaam tooñ yàlla waaje bala mooy waru la mu tub ko waaye waxuñu nag xàq ji dox ci diggante nit ak nit doomu aadama doomu aadama loolu moom euh, euh, am na ay charte <coughs> su dee bàkkaar bi dox diggante jaam bi borom subhaanahu wa taala ñetti sarte mooy ndike day njëkk a buddi ko ci mooy yàlla gi mooy yàlla gi tax mu tuub na ca buddi ko man na ko bàyyi doon naa ko misaal su daa naankatu sàngara bu ne naa xaar ba biteel bi jeex ma door a bàyyi su dee kii tox ne naa naa bàyyi paquet bi jeex déedéet mooy da nga koy daal bàyyi ca saasa su fekkoon biteel bi des na demal nga tuur ko sànni ko su paquet ba des na demal nga sànni ko kon nga buddi ko ci mooy yàlla gi bàyyi ko complètement loolu mooy sart bu njëkk bi ñaar sart bi mooy muy réccu ca jëf gam ko daan jëf mu yëg ne rek yàlla lu mu tere la lu na mu daa ko def kon war naa am mettitu xol ci jëf gi mu ko daa jëf nga xam daal nga xam sax bu ci sa xel demee rek nga am loo naqari ci sa xol ñetteel bi nag mooy mu dogu ci dootu ko defati mukk mukk mukk mukk ba ker ba ker muy sàngu suuf ñett yooyu mooy yi ëpp solo ci sàtti tuub diggante jàmm bi borom subhaanahu subhaanahu wa bàyyi mooy yàlla gi rëcc jëf gu ko naan jëf fas yéene dootoo ko defati su fekkente nag da caa bàyyi benn ci ñett yooyu ak tuubam wérut su fekkente ne bàyyi na bàyyi na ko man a buddi ko ne ci bàkkaar bi fas yéene dootu ko def waaye rëccuwut la mu ko doon def tuub gëmatut fekkee bàyyi na bàkkaat bi réccu na la mu ko def waaye nag waaye nag dogguwul ci ne dootuma ko defate ba tey tuubam wérut <coughs> kon boo ca boo bàyyi rek ci ñett yooyu tuub ga du wér loolu mooy mooy xàq walla bàkkaar diggante jaam boroomam su fekkee day xàq joo nag diggante jaam beeg moroomum jaam la doomu aadama doomu aadama kon ñeenti charte lay am charte bu njëkk mooy mu setal xàqi moroomam ci moom seetal ga xàqi moroomam xàq jooju nag mën naa mën naa aju ci alal mën naa aju ci ab der su fekkee day àq ju aju ci alal mooy dangaa siifoon alalam wala da koo sàccoon wala danga koo nax ba jël ko ci moom nga dem delloo ko alal joojee mooy saa mu njëkk ma nga delloo ko ko su fekkente nag day àqu ji cub der mooy da nga koo xas wala danga nga koo saaga wala da nga koo ŋàññi wala da nga koo jëw wala daal am na xam nga sikkam soo xam nga dem publier ko ci ci internet ba lu mel noonu nga dem ba ca moom sàkk ko mu jéggal la ñaan ko njéggal euh, su fekkee ne jéggal na la alhamdulilah loolu ma ñaar sàrt mooy bu dee mooy bu dee àqu jaaj ci alal demal delloo ko su fekkee mi ngi dund su fekkee dundatul nag nga dem ca ña koy donn nga leen lii ko seen alali bàyyi dama ko sàccoon mbaa dama ko siifoon ci moom mbaa dama koo naxoon wala dama koo agressé woon delloo leen ko su fekkente ne xamootoo kooku ku mu doonati koo dajaloon ci mbedd mi rek la xamoo ku mu doon wala ba xam nga ko waaye xamutoo ci moom dara xamoo ay mbokkam xamoo xamoo lennam xamoo foo koy seeti nga sar xel ko ko yéene ko yool ba su dee àq ju aju ci ab dar ji li ma junjoon léegi da nga koo jëw wala nga saagu ko wala nga ŋàññ ko mbaa yu mel noonu nga dem jébbalu ko su fe jéggalu ko su fekkee mi ngi dund su fekkee dund nag Sëñ Tuubaa neen la fa sës mooy nga farlu ci baril say jaamu yàlla ngir ëllëg soo ko fayee ay àq ma des ndax ki xas faatu moom te nga amel ko xàq jooj xàq yow bis feeñ ci paw faw ko danga ko fay te fa nga koy fayoo nag ci sa jëf ju baax la ñuy jël faye ko kon da ngay farlu ci jëf ju baax ba ëllëg boo fayee say say say xàq desa loo loo loo mën a sukkandikoo ak boole ko di ko jéggalul yàlla nag di ko ñaan ak njëgal maanaam sa yàlla ci tabam ak mbaaxam mën naa dem ba far ñaan nga ko ñaan njëgal dem ba suñu bam ci coobare mën ko soppi muy fay muy payu xàq jooju far kon war na daal mu tuub ci mboolem bàkkar yépp su fekkee dafa tuub yenn ya nag bàyyi yenn ya ñenn ci ba ma xam ne ak tuubam wér na ca bàkkaar yam jégglu waaye yam jégglu nag ma ngay moom njaalo nga naan nga sàngara sàcc nga nga tuub njaalo ko rek kon jàppal kon tuubu njaalo gi wér na waaye sàngara saak la ca des nag ya nga ya nga def gën a kooku rek ba tey bàkkaar baa ngi des ak yow kon la nga tuub tuubug loolu wér na la des des na ci dégg yi ni yenn boroom xam-xam yi waaye nag ay dalaayil yu bari ay ay tegtal yu baree bari ci téere yi ñëw na ci feeñ na ci ak sunna ak ijmaa lépp ci ci ne daal ci waruk tuub maanaam tuub gam war war gi mu moom ñëpp maas nañ ci daje boroom xam-xam yëpp maas nañ ci waaye nag eh, anam yaak lay tax mu rek la la la tax du wér yooyu moom ci la ay wute di am léeg-léeg asun ba maa ne wa tuuba illah jamian ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun yéen jigéen yàlla yëpp na ngeen tuub su ngeen tuubee de da ngeen taxe la'alla su ko arab waxee nattal mooy amaana amaana waaye su ko alxuraan waxee nag taxaqiq la mooy dëggal xam la àll ko tuf la àll ko tuf su fekkee da ko da nga ko firee ci dégginu arab ci waxinu arab da mooy man naa am ngeen texe waaye su ko alxuraan waxee nag mooy da ngeen texe alxuraan moom du koy dëggal ay laallakum tuflixuun mooy kon da ngeen texe <coughs> ma waxaan ne istaghfiru rabbakum summa tuuba ilayhi jéggalu leen yàlla te dellu ca moom jéggalu leen yàlla te dellu ca moom istixfaar tuub leen texal dinaa ci ñëw ci kanam tuuti waxaa ne yaa ayyuhal lazina aamanu tuubu ilallaahi tawbatan nasuuha yéen yi gëm yàlla nangeen ngeen tuub dellu ci yàlla tuub gu sell kon muy tegtal ne kon lu lépp day tegtal ne kon tuub kon waru gar la alxuraan saxal na ak ak waram sunna saxal na koy itam ndax jël na ci abi hurayrata radiyallahu anhum wax ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min sab'ina marra waa buxaari abla abi abu xurayra nee na dégg naa ci yonente bi salaa mu wax ne giñ naa ci yàlla ne man de bis bu sedd naa tuub lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon te kon ne xam na ne moom deful bàkkaar rasulullah deful benn bàkkaar kon dafay tegtale kon tuub rek waru la te mu neen bis bu sedd naa tuub lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon ma dana tuub lu bari rek <coughs> jël nañ ci axarum nu yasaar mu wax eh, yàlla na ko yàlla gërëm wax ne yonente bi sallallahu wax na ne yaa ayyuhan naas tuubu ilallaahi wastaxfiruuhu fa innii atuubu fil yawmi mi'ata marra mu ne yéen nit ñi dee leen tuub ci jëm ci yàlla te di ko jéggal ndax man de bis bu ne dinaa tuub téeméeri yoon rawaahu muslim kon su ne dinaa tuub téeméeri yoon jublu ci lim waaye bari la ci jublu xam nga leen nit di la yàdd naa nanga wax naa di ko téeméeri yoon kon xam na waxal téeméer yooyu lam jublu mooy wax naa ko lu bëree bëri rek jël nañ ci abi Hamza muy Anas ibn Malik al ansar yi xaadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yàlla gërëm mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne allahu afraxa bi tawbati abdihi min ahadikum am na sax bu bu gën a leer ba dafa wax ne allahu ashaddu faraxan ci riwaay boo xam muslim boo ko solo allahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi xiina yatuba ilayhi min ahadikum kaana ala rahilatihi bi ardi bi ardi falatin fan falatat minhu wa alayha taamuhu wa sharabuhu fa ayasa minha fa ata shajaratan fattajaa fi dhilliha wa qad ayasa min rahilatihi fa baynama huwa kadhalik id huwa biha qaimatun indahu fa axada bi xutaamiha ma xaali min shiddatil farax allahumma anta abdi wa ana rabbuk axta min shiddatil farax saason dafa wax ne yàlla ni muy bége ci tuubug ab jaamam may raw jaam bi nga dafa waroon ab ak naagam dafa waroon ak gileem goo xam ne daa dem ba ci ba ci ba ci ba ci benn désert mooy àll bu sori sori sori nee giléem gi daldi koy rëcc eh, daldi màmm ta la muy war a lekk la war a naan lépp nga ci gileem ga mu dem ba naagu te gileem googu mu ñàkk na ko mu dem ba ci ren ren genn garab mu tëdd fa di nelaw jekki-jekki yeewu rek gis gileem gi taw tiim ko mu jàpp ci mu jàpp ci lab nee na kooko bégg bégg bégg ba ba juum ne yow yàlla yaay sama jàmmaay sa borom nga xam ne mbégtee tax mu juum na la la mu bëggoon wax mooy yàlla man de sa jaam rek la yaay sama borom mu juum ne yow sunu borom yaay sama jàmmaay sa borom nee na ma moom mbég ba wax loola nee na mbégteem yàlla ci ab jaam bu tuub moo moo raw moo raw mbégte moom kon ndeke kon jaam su tuubee sunu borom dafay bég ca tuub googee moo tax sëñ Tuubaa di ko dénkaane sax waxtu nekk di wax ci di wax ne yaa taalibal jinaani raa'i dal kalaam wa amal bihi tafuz bi afdali maram yow mi sàkk ko tàbbi aljanna sàmmonte la sama wax ji te nga jëfe ko kon danga am la nga bëgg lépp ngeen ngeen ngeen jàmmaag gi la ngay sàkku bi tawbatin xaalisatin min dan bi xaa biibaani jannaatin ilaaha kaftaxaa neen neen neen neen da ci tub gu sell ci bàkkaar neen subaa sum doon daan la ubbil juróom-ñetti bunti àjjana yëpp mooy da ngay tub juróom-ñetti bàkkaar yii suñu doon tijji juróom-ñetti bàkkaar yi juróom-ñetti bunti àjjana yëpp <coughs> neen soo tubee juróom-ñetti bàkkaar xam nga àjjana juróom-ñetti juróom-ñetti bunt la bàkkaar bu nekk boo ci tuub rek day ubbi buntu benn bunt ci buntu àjjana yi kun taibatin min kun taiban min ghibatin wa kadibi bi sitri wal xaqi tafuz bil arabi na nga tuub jëw tuub fen nga nga remplacer ko sutura ak dëgg kon danga danga da nga da nga làq euh, mboolem la mboolem say aajo <coughs> tub min duhaaika ala maxluqi wala andatin yarhamka du tawfiq fekkee da ngaa mas ñaan yàlla ab julit diw yàlla na torox wala diw yàlla na dee ñaan wax da ñaan yàlla daal nit ci lu ñaaw neen loolu na ko tuub na ko tuub kon day wala wala nga mas a kenn móolu danga ñaan yàlla nit wala nga móolu ko na nga ko tuub kon de san sun borom sun borom mi borom tawfiq dana la yërëm tub min miraayika wa min tazkiya tub tub ah, waa tub min miraayika wa min tazkiyati an nafsi taxwil ajra doona miriyati tuub sa njistal ak sellal sa bopp sellal sa bopp mooy tagg sa bopp maa mel nii maa am lii maa def maa def nii nga xam daal sel mooy tagg sa bopp neen na ko tuub kon da nga làq ab yool ci lu genn werante watub minal misaahi mithlal xulfi fil waadi yarda anka muti lutfi na nga tuub itam caaxaan lu mel ni wute ràndiw di dalaa jox ràndiw nga fóosi ko wax daal loo defut na ko tuub kon da gërëm loo yàlla mi nga xam ne mooy joxe ak ñaawante soo tuubee juróom-ñetti bàkkaar yooyu suñu borom tijji la juróom-ñetti bunti àjjana yëpp Sayyidina Ali karamallahu ci war a dee anhu dafa waxoon at tawbatu nadamun bil qalbi wa istixfaarun bil lisaani wa tarkun bil jawaarihi wa idmaarun allaa neen tuub may da réccu ci sa xol réccu xol ko def da ngay réccu ci sa xol jéggalu yàlla ci saw làmmiñ bàyyi bàyyi bàyyi bàkkaar bi ci say cër ak def ci sa conscience bañ caa delloo kon da mel ni ñeenti cër kon ñooy tuub xol bi làmmiñ wi cër yi bàkkaar bi muy muy sa conscience mooy eh, na na nga ci xol bi mooy réccu réccu yi def gi nga ko def na nga tuubi ci tuubi ci làmmiñ mooy jéggalu ko yàlla na ngay tuube ci cër mooy bàyyi bàkkaar ba na ngay tuube ci conscience mooy fas yéene dootoo ko defate bañ delloote bu faw <coughs> kon loolu mooy tuub ñëw na ci istixfaar tuub leeral nañ ko ci biir bunt bi ba mu leer nañ ñi tuub pas-pas la mooy réccu nga li nga defoon Euh, fas ngeen dootoo ko defati mbukk def gi metti na la euh, bàyyi ngeen bàkkaar bi mooy bàyyi nga bàkkaar bi réccu nga def ko fas yéen dootoo ko defati loolu rek boo ko fas xasee fas mooy tuub nga istifaana mooy nga jéggalu yàlla mooy ñaan yàlla mu jéggal la ñaan yàlla mu jéggal la mooy istixfaar kon dafa jege tuub waaye bokkuñu istixfaar nag da muy yàlla kon jeexal nañ ci tuub ñu ngi dugg ci istixfaar mu jéggalu yàlla jéggalu yàlla dafa doon lu am solo lool ci biir lislaam doon lu bari it ay jeexit jaam bi dafay dafa dafa dafa war a tàmmal boppam tuub tàmmal boppam jéggalu yàlla ci saabu saabu toggoo ay ñawteef ci ak dundam loolu nag su fekkee am na am na njariñ yu màgg a màgg ak jeexit yu kawe yoo xam ne dana ko jariñ te di ko dëgëral ci bakkanam ak dundam dañ ci tudd yenn rek ci njariñ yi ak jeexiti istighfar mu jégalu yàlla ba ci njëkk jégalu yàlla dana am tax jege yàlla daa tax jàmm bi jege yàlla subhanahu wa dana baril ak ajoom ci moom saabu bu jullit bi soxlawoo tudd yàlla ndax istighfar ci tudd yàlla bokk ak fàttaliku ko ak jaginlu ko loolu da koy da koy may muy jege borom bi subhanahu wa taala kon istighfar mu jégalu yàlla dana tax jege yàlla subhanahu wa taala ndax bàkkaar dana tax sori yàlla waaye istighfar nag bu la yàlla yëgal yëgale mën a tax nga jege ko ba ko ñaareel tafrijul bi wan shiraahu sadr wa dahabul humum wal ghumum yëpp dafa am ci jégalu yàlla mooy jégalu yàlla dana dana wuññi njàqare lu mel jamono yi ñu doon jamono njàqare la mooy jamonoy mbas mi jafe-jafe bari ñàkk gi bari dëkk bi dëgër lépp am soo saxee jéggalu yàlla suñu borom dana bu ñëpp ci bu ci ñëpp maase woon rek suñu borom dana dana dana rocc ci njàqare loolu ci noonu jéggalu yàlla dafay dafay ubbi dafay ubbi xol dafay ubbi xol di ko leeral jéggalu yàlla dafay dàq njàqare ak i tiitaange ba ko ñetteel istixfaar sababun fi duxuli jannati naim wa tamatoi bi ma aada allahu taala li ahliha jégalu yàlla dana tax a tàbbi aljanna aljanay xéewal yi nga xam ne suñu doon da ko dig ñi ko ragal waaye dana tax itam xéewoo jot ca la yàlla dige lépp bis penci jégalu yàlla dana tax suñu doon jotaleel ca lola la muy dig ay jaamam ya sellal bis penci jégalu yàlla man daa mën a tax suñu doon jotaleel ca lola ba ca topp mooy jégal yàlla sababun fi safaa il qalbi wa naqaihi wa shuuri bi raxati wa tumanina jégalu yàlla dafay laabal xol daf koy seetal wicc ba benn gàkk benn tâche dootu ci nekk waaye dafay may nit ki itam mu mu mu yëg noflaay mooy dafay dafay mooy doom benn stress maa jégal yàlla dafay dafay dafay dàq stress kan da dangay féex dangay am jàmm dangay am amuk dal doo xalaat dara doo tiit dara doo ragal dara loolu lépp jégalu yàlla daf koy daf daf koy defal nit kon jégalu am solo la ba ca topp mooy jégalu yàlla mu kafiru dunub dafay far ay bàkkaar am set baril istixfaar mooy baril jéggalu yàlla ak saxoo ko ci sabab bi sabab yi tax sunu boom jagleel ak njëggalam ab jaam ci la bokk man sunu boom da ko man man sunu boom na caa joggi ci jéggalu koy jéggal ko bakkaaram yu ndaw yépp waaye joggi ci jéggal ko bakkaaram yu mag yëpp kon istixfaar su fekkente ne ise jéggalu ko wér na sax na rek ànd ak sàtt ya war a àndal bàkkaar yu mag yu ndaw yëpp la ci sunu boom di jéggale maa su fekkente ne man a dafa jégalee boole ko sàtti tuub nag sàtti tuub tuub leeral nañ ko da ngaa jégal yàlla boole ko sàtti tuub ngir xam ne <clears throat> euh, gis-gis yi borom xam-xam wuute na foofu nag wuute na ci mbir mi euh, wuute gi dinaa ko leeral ba ci njëkk mooy ñenn ñi dañoo wax ne bu dee. Euh, njiit ngirum Shaafi yi ñoom dañoo wax ne istixfaar su fekkee la ca jaam bi jublu mooy inkisaar mooy mooy toroxlu ci kanamu yàlla ak aajowoo yàlla te booliwu ko tuub mën na ko faral bàkkaar yu ndaw waaye du farale na bàkkaar yu mag ya loolu mooy seen wax ñoom wax ñaari ji na ci la yeneen ngir yëpp ànd muy malikiya muy xanafiya muy bala ñoom ñoo bokk luñ ca gis ñoom dañu wax ne istixfaar donte àndul ak tuubit yàlla dina ci far bàkkar yëpp yu mag yi ak yu ndaw yi fekk da nga jégalu yàlla boo boolee ko tuub mooy jégalu yàlla da nga def donte ànd ak sàtti tuub yi teewut suñu boom bàkkaar yu mag yu ndaw yëpp mën na caa joggi jégal la ko kon loolu mooy wute gi ci nekk kon day mel ni Shafi'iyya rek ñoo ci ber waaye yeneen ñeenti ngir yi gën a siiw ñetti ngir yi ñetti ngir yi ñoom dëppoo nañ ci ne yàlla dana jéggale ci istixfaar doonu ba mboolem bàkkaar yëpp ba ci topp ci njariñ yi mooy sababun fii daf'il balaa'i allati xad yusibul abd mu ne istixfaar mu jéggalu yàlla sabab la ci suy dàq balaa balaa fi na mbas kon xam na balaa ngi fi mbas mi fi nekk fi ne mu ñëpp maase woon ci tuub jéggalu yàlla suñu boom jëlee ko fi ndax léeg-léeg nattu yu mel noonu bari bàkkaar tax yàlla yàlla di ko wàcce mooy fàttali boppam ngeen ñi dellu ci moom waaye ni dafa dëgër bopp balaa ñëw na ñu dellu ci yàlla parce que ñëpp maase nañ ci tuub dellu ci yàlla rek mu jëlee fi balaa kon balaa balaa istixfaar da koy dàq mu jéggalu da koy dàq euh, waaye itam aw la ci fecc mboolem ay jafe-jafe mooy dàq mboolem ay jafe-jafe yoo xam daana waaye itam dafay not mboolem son obaat yi ëkk yi nga xam ne dana gaar nit ci ak dundam ndax nit ëkk yu bari na ci kanamam yoo xam ne balaa ak dundam a teg ci yoon dana jéggi ëkk yooyu yépp waaye nag dana ko dana tu jéggul yàlla dana ko yombalal ak jéggeem ëkk yooyee ba keroog ak dund di man a di di di maanaam maanaam tuma andi na ba ca topp mooy jégalu yàlla istixfaar nawoon min anwaay doa wenn xeet la ci xeeti ñaan yi jégalu yàlla ñaan la ab àtteem ci loolu mooy àtteem ñaan rek ab julit buy jégalu yàlla mooy danga ma ngi ko ci yàlla asa wa ak njégal mu jégalu koy bàkkaaram kon ñaan la dangay ñaan yàlla mu jégal la say bàkkaar saa boo xamee na nag ànd nag yëg-yëg yëg-yëgu inkisaar muy wàcce damm say cër ci kanamu yàlla wàcce sa bopp toroxlu eh, doyloo yàlla toroxlu ci kanamam soo wàcce lañ gën a yaakaare nangu suñu boom ci jéglu yàlla googu yi nangu ñaanam googu rawatina su fekkee da ko nattaleeg barab yi ñu nangoo ñaan ak waxtu ñu nangoo ñaan ndax ñaan am na barab yoo xam ne barab yi nangu ñaan la am na ci waxtu yoo na ne waxtu yi nangu ñaan la danañ ci ñëw ba ci topp mooy istixfaar mu jégalu yàlla sababun fi nuzulil ghaith wa barakatil maal wa inbaati nabaat jégalu yàlla dana wàcceb taw nga gis léeg-léeg bu fekkente ne nawet jub na mu yeex a taw fi nekk Sëñ Tuubaa digle ñu jàng mil jéggalu yàlla loolu day dafay wàcceb taw jéggalu yàlla dafay wàcceb taw dafay barkeel alal jéggalu yàlla dana barkeel alal jéggalu yàlla dana saxal gàncax nawet mën naa ñëw mi nga taw bu baax waaye gàncax ga baaxut bu ñu jéggalu yàlla sunu bam baaxal gàncax ga suñu bam nee na fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara nee naa leen da ngeen jéggulu seen borom ndax yàlla kat jé jéggalaa kon la da caa teg ne yursil sama aleykum bi daraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa ja'al lakum jannaatin wa ja'al lakum soo yàlla bu ngeen bu ngeen jég yàlla yàlla dana leen jégal waaye nag dana wàcc ab taw ci asamaan dana wàcc ay taw ci asamaan daal dolli seeni alal dolli na njaboot kon nit ki mënut amul njaboot sax bu dee jégalu yàlla yàlla may ko njaboot waaye dana leen defal itam ay ay tàbbalin aljanna ëllëg gannaaw bu leen def defalee ay àjjana fii muy muy muy muy tool yu naat jox leen ay dex foofee Eh, ànd ak lépp nag eh, sabab la suy dolli quwwa muy kàttan jég jégleel dafay dolli dafay dolli kàttan jàmm bi di ko dolli xéewal sun doon sun doon nee na yaa xaw ma wa yaa xaw mistaghfiru rabbakumu rabbakum summa tuubu ilayhi yusi sama aleykum bi dara wa yasidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin neen yéen nit ñi dangeen ngeen jéggul seen borom te tuub dellu ci moom kon asamaan dana wàcc ay ay taw yàlla dana leen dolli kàttan bu do fekk seen kàttan ga ngeen amoon kon nag bu leen bu leen wan wane gannaaw mukk doon ñu kàccoore <coughs> ni ko noonu jéggul ya sabab la suy taxam istixqaaq maanaam yayoo yayoo njégalu yàlla ak yéen ma dem jégalu yàlla dana may yërmande borom subhanahu wa taala dana tax yàlla yërëm la su ma nee na yaa xam ne li ma tastajiluuna bi sayyi'ati xablal xasana law laa tastaxfiruuna allaaha la'allakum turhamuun yéen nit ñi lu ngeen di lu ngeen di njëkkante ak yàkkante ak gaaw ba def ñaawteef lu jiitu ngeen di ngeen def lu rafet su ngeen jégloon yàlla de yàlla yërëm leen kon jéglu yàlla kon dafay may yërmande yàlla subhanahu wa di may njëgalu yàlla subhanahu wa tax tam nga yaayoo yërmandeem yaayoo njëgalam ba ca topp njëgalu yàlla <clears throat> sabab la fii takfiiril axtaa allati xat taxsulu fil majaalis bi sababi bi sababil xadiis allati yaduuru fiiha istixfaar sabal suy tax suy suy suy far ay ñaawteef ay njoomte boo xam ne mën naa la ci garam boo toog ci garam place léeg mën naa am ñaawteef wala daal boo xam ne ci saw bu su wax joo fa waxe la wala wax juñ fa wax joo xam mën na mën naa jure gàllankoor ñaawteef boo xam ne ci saw bu waxtaan ci ci la yi dox seen diggante ci la ci la ci la sabu boo waaye jégalu yàlla dafay dafay far bakkaar yooyu takkook jégalu yàlla itam moo tax da ngaa toog jégalee saa boo jógee ci jotaay waxtaan rek saa boo toogee ci grand place ñu waxtaan ba jóg na nga jégalu yàlla. maanaam wax nga fa lu lu la lu la teg bàkkaar mbaa nga dégg fa loo teg bàkkaar kon saa boo jógee ci barabu barabu grand place rek bépp jataay boo toog ngeen waxtaan ba nga jóg rek na nag na nga yàlla kon dana far mbooleen lu fa doxoon ci ñaawteef ci seen diggante bay toog jégalu yàlla sabab la suy tax a mucc ci sawara dana tax a ci sawara waaye tam dafay taxaam daraja yu kawe kawe kawe ci aljanna ya suñ ko doon lim mën nañ fee fanaan te du jeex walla mën nañ mën nañ fee yandu boog laa bëgg a wax te du te du jeex kon eh, loolu rek mën nañ cee sukkandiku ci xam ne kon jéggul yàlla kon lu bare bare bare ay njariñ la muy njariñ fii ci addu ak njariñ bis penc ëllëg ci aljanna ñëw na ci sabab bi sabab yi mën a jur mën a jeexit yi nga xam ne yi nga xam ñàkk ñàkk tuub wala ñàkk dëggu tuub man wala wala mën a tax ay jeexit jeexiti tuub du feeñ wax nit ki mën naa tuub ba noppi du gis jenn jeexit ju koy wane ne jéggal nañ ko ña li tax jeexit yooyu ñàkk am nag am nay am nay sabab ci la ñëw jaam bi ne na jéggalu yàlla lu bare bare bare bare bare waaye mu yéemu ci fekkee gisu jenn jeexit ju feeñ ci istixfaar mu ci jégloom googu ci ak dunda maa gis ci benn jeexit ci ak dunda gu jeexit gu ci jeexital lay dëgg-dëgg mooy ñàkk ñàkk jeexitu jéglu yàlla googu yi <coughs> ñàkk jeexital gi na sabab yu bari dañ ci tudd yenn bi ci nekk mooy at talaffuzu bi siyaaqil istixfaar bi bil xawli faqat doon doon doon istisnaari maanaaha fil qalb mu fekkee da ngay tudd baati jéggalu yi képp yam ci mu yam ci sa làmmiñ rek waaye nag amoo ci benn yëg-yëg ci sa xol maanaam bi ngi xam nga xam daal amu ànd ak teewlu ànd ak ragal yàlla ànd ak wàcc si kanam bu yàlla waaye ma tudd nga baat ci sa làmmiñ kese kese kese rek waaye amul benn yëg yéegu xol boobu mu àndal ak ñàkk xër ci dëggal ci istixfaar googee loolu mën naa tax istixfaar gi xam euh, ne euh, ndax istixfaar kese kese tudd gi rek ànd benn xamanteef bu dëggu ci dellu ci yàlla subhaanahu wa ak tuub subaa mën naa bañ a jeexital ci yow kon la tax jeexitalu mooy ñàkk ñàkk gi nga ñàkk teew lu ñàkk am yëg-yëg ci sa xol benn la ca ñaareel mooy ñàkk saxal sàrti tuub yi sarti istixfaar laa bëgg wax sarti jégglu yi jégglu forme la ci forme ñaan yi benn forme la ci forme ñaan yi ni ma ko junjee woon ci gannaaw léegi mooy ne jégglu yàlla subhanahu wa taala dafa am ay charte am na shuru am nay mawaani su fekkente nag dafa wéet ca sàttam yooyee maanaam sàtte da caa dàqu jeexit yi itam dafay dàqu mooy jeexit yi gën a dafay dafay dàqu mooy do am benn jeexit ci yow ci sa dund sawaxan jàmm nag jublu na ci jégloom googee maanaam taw ba ma xam da ca jublu tuub mboolem bàkkaar yi yam teggoo yam toggoo woon nga xam ne du ko jariñ fa lu may lu may gàttañ lu ci gàttañ lu ci istixfaar ci làmmiñ kese kese kese kon war na ci xaqam <coughs> muy dëgg mu dëgg na sàtt sàtt tuub yu wér ya te mooy buddi ko ca bàkkaar ba yaa ngi jégalu yàlla bàkkaar ba yaa ngi koy def ba tey déedéet kon da ngay buddi ko ci bàkkaar bi boole ko jégalu yàlla subaana mën naa jeexite waaye su fekkente ne yaa ngi def bàkkaar bi yaa ngi jégalu yàlla yaa ngi sax ci bàkkaar taxul nga bàyyi ko subaa istixfaar mën naa bañ a jeexital ci yow. istixfaar am na àtte cosaanul istixfaar cosaanul jéggalu yàlla cosaan la ci àtte mooy sopp mooy day day ñu sopp la ndax amaana nit ki mën naa bañ a def ak mooy yàlla sax waaye du tee mu jéggalu yàlla ndax jéggalu yàlla su ko aj ci kaw jëf def bàkkaar mën ngaa bañ a def benn bàkkaar ba noppi di jéggalu yàlla gis sa Sëriñ Tuubaa ay xes dam lim ci jéggalu yàlla ni mu baree te ko ne xam ne moom deful benn bàkkaar rasulullahi wax naa ko léegi ci gannaaw gis nga wax na man bi sedd naa tuub nangami yoon tudd lim bu bari te ku ne xam ne moom defut bàkkaar kon jéggul yàlla dee su ko aj ci kaw def bàkkaar yi waaye boo defut bàkkaar yi man jéggul yàlla kon lu ñu sopp la nga di ko def fekkee da nga def ba man day day àttawe ah, ba war day war moom soo defut bàkkaar lu ñu sopp la soo defee bàkkaar nag day war sun boo nee na wastaxfirullaaha inna allaaha xafuru jéggalu leen yàlla ndax yàlla kat ku mën a jéggaleel ku bari yërmandi la kon ndekk kon àtteeb istixfaar mën naa soppi ko jóge ci sopp dem ci war ni ki jaam bi su toggoo ñaawteef maanaam su toggoo bakkaar jëf bakkaar suba jéggalu yàlla waroo gar la ca moom nekkatu sopp waaye dafa war léegi jéggalu it mën naa nekk lu ñu sib mën naa dem ba doon lu ñu sib comme ni ngirum Maliki yee gisee àqi ku topp ci am néew di ko jégalul yàlla kon fa nga koy jégalu yàlla mooy fa ñu koy jullee waaye ba nga koy gunge topp ci gannaaw di ko jégalu yàlla lool loolu lañ ko sib ci ngirum Maalik waaye tuub sax jégalu yàlla mën naa dem sax ba far àgg ci xaraam far jégalu yàlla doon lu xaraam mel ni jégalul yàlla ab yéefar yéefar bu faatu dafa xaraam nga jégalul ko yàlla chrétien bu faatu dafa xaraam nga jégalu ko yàlla ma ku dul jullit rek ku dul jullit su faatoo xaraam na ci ab jullit mu ñaan ko jégalu yàlla kon sopp nañ jullit bi de bari lool lu muy jégalu yàlla bari istixfaar tey laaj yàlla njëgalam ak mu seetal ko ci mboolem bàkkar yi ñëw te fii jégal ko mboolem bàkkaar yëpp jégal ko rëcc rëcc yi nga xam dafa bàyyi ko ci moom waaye te ci waxtu yi nga xam ne nag rawatina waxtu yi nga xam ne say jaam yàlla da cee néew say waxtu yi nga xam dafa néew lool foofu na nga fay baril jégalu yàlla ak di di ko sàkko jegeñ loo ko mën nañu junj ci ne tabi ab doomu aadama tabi ab bàkkaaru doomu aadama dafa jàkkaarloog bàkkaar nit moom dafa waxtu nekk da nga mi ngi exposé maanaam bàkkaar mi ngi exposé ci kanam dafa jàkkaarloog moom ak njuumte yaag rëcc rëcc yi xan ci yërmande yàlla cib ja ciy jaamam tax mu yoonalal ko lu bare baree bari ci ay jaamu yàlla ngir jaamu yàlla man man koo tënk ma dox diggam ak yooyee waaye sarixal ci moom jëf yu baax jëf yu baax yu koy jegal yàlla julli ak màkka boor weeru koor natt asaka ak yu bare baree bari nga xam ne nit ki léeg lekk yooye ci lay mën a defare yenn ci gàttañ gàttañlom ak gàttañlom ci jàmm yàlla jégglu mën man man mën a mën a mën a mën a mën a defar man a defar yooye gàttañ lu googee li ngay jox ci ay jàmm yàlla ci ak farata léeg ay njumte yi ci nekk yoo xam ne jégglu yàlla mën naa mën mën naa tax mu saafara loola ndax yàlla léeg ci bu ko soobee mu soppi say ñaawteef def koy rafet rafet den dolli itam ah, ngëneel den dolli itam ab yool ndax su doon eh, neen ci ci bàkkaar yu maanaam ci eh, eh, julli julli juróom yi dana far bàkkaar yu ndaw yi boo sax lay julli juróom mu far la sa bàkkaar yu ndaw bàkkaar yu mag yi nag moom tuub rek ci la ko yàlla jéggalee innal xasanaati yusib na sayiat innal xasanaati yudhib na sayiat alxasanaat foofu julli juróom lay tekk ak sayiat foofu bakkaar yu ndaw yi lay tekk man bu ngeen saxalee julli juróom yàlla jéggal leen bakkaar yu ndaw yi waaye gàttan yu am ci julli na nga xam ne mën naa am doo ko matal dëgg dëgg dëgg na mu waree koor doo ko waral dëgg dëgg na mu waree asaka doo ko mën a dëgg na mu waree jéggalu yàlla yi nag mooy tax suñu bam faral la yooyee mooy la ca wàññiku ci ci loo xam ne ma ngay boo ci manqué doomu aadama jàmm yàlla yooyu nag moo tudd yàlla la dafa taxaw taxawaay tudd yàlla fàttali ko fàttali ko ak tudd ko jégalu yàlla nag jégalu goo xam ne jégalu yàlla gu gu gu dëggu su amee dafay dafa dafay dafay sax ci xol maa ci xol lay jóge nit ki da ko yëg moo tax warugar ci jullit bi muy jëf-jëf joo xam ne da ci jullu da ci jullu sàkku njëgal ci yàlla jullu ci yàlla jéggal ko njégal ko sax dàkk <coughs> kon warugal ci jullit bi buy jéglu yàlla mboole ko mboole ko jixaar ak bakkanam jixaar de bakkanam ci yéeg-yéegu maanaam istixfaar maanaam na na fexe ba teebal xolam am yéeg-yéeg ci ci jéglu gi mu jéglu yàlla ci xolam ndax mooy tax man mën a àgg ci lam bëgg ak dundam tey yi ak alaxira fekkee ne jégalu gën ci làmmiñ wi rek rek la yam waaye ànd ak càggante xol subaa nag mën naa jégalu yàlla lu bare bare bare bare bare te doom benn jeexit bu mu ci moom lool la loolu la boroom xam-xam yi tuddee tawbatul kaddaabin tuubug ñi ñi waxul dëgg mooy tuug dafa la yem ci làmmiñ képp waaye amu ci benn yéejéegu xol ba ci maalik yi muy ngir mi ñuy sukkandiku moom ñoom dañ ko dañ ko jàppee sax bàkkaar ñoom far ak mooy yàlla te sax dañ ko yégal sax bàkkaar yu mag yi ci kabaayir yi muy jéggalu ko xam ne eh, ci sa làmmiñ képp lay am eh, mën na am waaye jéggalu am na ay waxtu ju ñu naa ko ci gannaaw am na ay siyaax mooy ay waxiin yu bokkut ku njëkki waxtu yi yàlla dafa sarixaal ci jullit bi mu di ko jéggalu tey dellu ci mu waxtu nekk rawatina nag gannaaw bu matalee ay jaamu yàlla soo julee ba sëlmal nga njëkk a jéggalu bala ngaa def laa nga njëkk ay sixfar astaghfirullah al-azim loo ca teg nga du ko ca teg soo waree ba jant so nga jéggalu yàlla soo nattee asaka ba noppi nga jégalu yàlla kon taamu nañ daal jégalu yàlla ci gën na ci mujjug jëf ju baax eh, su ko defee nag kon eh, la nga xam ne moo moo moo moo manqué ca jëf joojee nga doon jëf mooy da ngaa julli ba noppi jégalu yàlla julli ga mën naa am lu ca manqué loo xam ne ci manqué doomu aadama laaju léeg-léeg sa xel génn ci julli gi dem feneen. ndax tënk sam xel ci julli ba sëlmal te sa xel demut fenn loolu yombut ci ab jàmm moom te loolu lañ digle kon da ngay jégalu yàlla loola la ca manqué loo xam ne maanaam manqué doomu aadama ci ci la saw waree ba noppi mën naa am itam am nga rëcc rëcc yor ci bëccëgu weer boo xam ne xëy na manqué doomu aadama la ci yóbbu kon soo jan sooy nga jégalu yàlla ci jégalu yooyu mooy mën a far loolee nga xam ne moo ca manqué kon manqué manqué yaa am ci jaamu yàlla ga li tax ñuy bëgg nga de gën a jàmm yàlla. mooy manqué manqué yi am ci jaam yàlla nga ko man mën na ko jabru mën na ko mën na ko defar moo tax boo noppee ci julli boo noppee ci koor boo noppee ci mën na doon ju baax kon waru ci julli mu jéggalu yàlla su fekkee dafa dafa toggoo bàkkaar lee mooy nañ ko sopp bu fekkente ne dafa bàkkaar boo defee bàkkaar nag moom warugar la ak ma yàlla gu mën doon ci may yàlla yi nag wala bàkkaar bu mën doon ci bàkkaar yi bokk na ci ngeen waxtu yu ngëneel yi yi yi nga xam ne moo gën di ci jéglu yàlla mooy waxtu njël sama galas gi nag ñu ci bare bare bare duñu yeewu njël fajar sax duñ ko yeewu wax ma la njël <coughs> njël nag moo jiitu fajar njël mooy ay quatre heures du matin cinq loolu mooy njël xam nga fajar moom six la kon jiitu lu jiit waxtu yow lu jiitu fajar lu bare bare waxtu mooy waxtu njël foofu nag la la la jégul yàlla gëne mooy waxtu yi nga xam ne moo gën ko ci jégul yàlla mooy waxtu njël suñu boobu na bi las xeerihum yastaxfiruun muy taggaay yàlla yi ne ñoom de ci waxtu njël yi la ñuy jégul yàlla istifaar am nay siyaax ay siyaax mooy ay waxiin am ay barab am ay barab am nag ay ay ay waxin yu bare bare bare yoo xam ne dana jàpp na ci jullit bi eh, mu mu mu di ko jéggloo mu di ko jéggloo yàlla da ci da ci dolli ak jubloom ci ñaan bokk na ci seex yooyu ci waxi nii mooy li ñu tudde sayidul istixfaar mooy sangub jégglu yi mooy jégglu jégglu yëpp ba ca gën nga xam mooy sang ba xam nga nit ñi am na am nañu gënante ba wax ne dañu kii mooy sangum nit ñi salaasam ne mooy sangum nit ñi ndax moo ci gën bu ne sangum nangam rek mooy la gën ci la istixfaar am na sang sangu sangum jéglu sangu jéglu mooy allahumma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastataatu a'udhu bika min sharri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta loolu gàtt la mooy sangub jéggalu yi ko ko mën di jéggaloo ku man gannaaw julli farata gu nekk nga def ko ñeenti yoon baax na ku ko mën nag nga di ko def suba ak ngoon suba gu ne ñeenti yoon ngeen ngoon gu ne ñeenti yoon saydu istifaar nag mooy sangu jéggalu yi dafa an dafa làmboo ay maani yu màgg a màgg a màgg ba njëkk mooy am na i'tiraaf mooy reconnaître nga ne yàlla subhaanahu wa taala mooy ki ya yow moom dong uluhiyya ak ubudiyya moom képp a yayoo ñu def ko buur keneen du buur ku dul moom moom rek a yayoo ñu jaamu ko desu jaamu keneen ku dul moom kon saxal nga lool ndax alam anta rabbii ji laa ilaaha illaa anta xalaqtanii wa ana abduka loolu tegtal na tegtal na na yàlla rek ka yaayoo jaamu te moom rek jaam moom rek la moom it kenn moomu la kon saxal nga loola saxal nga ne itam moo la bind la anta xalaqta nii kon yàlla képpay bind kenn mënta bind ko dut yàlla ndax tubaab yay defar leneen ci lu yàlla bind la ñu sukkandiku ngay defar ko kenn mënut a defar dara te sukkandikoo ci ci ci leneen loo fekkoon te yàlla mooy may kàttan mën a defar dara it ñetteel bi mooy mooy reconnaître reconnaître nga sa bàkkaar idaafa ko ci sa bopp a'udhu bika min sharri ma sana'tu kon reconnaître nga ne danga danga da man jë ko nit ko bakkaaru nga askane ko ci sa bopp ba ko ñeenteel mooy jublu gu dëgg gu bàyyi ko ci jaam bi jëm ci Yàlla subhaanahu ci feeñal xememteefam ci jéggalu ko ca ca ca la nga xam ne dëxal na ko ko waa të ca xam tëkkoon na ko ay jaamam ak reconnaître ci ne yàlla moom képp mooy nga am kàttan ci loolu aboo laka bi ni'mat bi ni'matika alayya waaw wa aboo bi dhanbi mooy récolté nga foofu sa bàkkaar ba ko juróom mooy mooy mooy saxal nga ne xéewal yi ci yàlla képp lay bàyyi ko maanaam xéewal yi jàmm bi am ci ak dundam lépp lépp lépp mi ngi bàyyi ko bàyyi ci yàlla subhanahu wa taala moo tax istixfaar kon sangu jé jégalu yi làmboo na yooyu maani yëpp ba ca topp nag mooy jégalu yàlla ci booy génn ci wanag saa boo dugg ci wanag ba génn nga ne xufraan maa ngi sàkku sa njégal yow yàlla <coughs> soo nañ jëli ci ummul mu'minin Aïshata radiyallahu anha mu ne kaana rasulullahi sallallahu xarja min al xaala xufraanak nee na yéen saa su saa bu ma saa génn ci wala day wax nag xofraan mooy sunu ba maa lay jéggalu yàlla nag ma jéggal say samay bakkaar saa bu àggalee ci njàpp yi soo jàppee bàggal yonent bi saa sam nee na man tawaddaa fa xaala ba'da faraaxi min wudu'i subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ba fii raqin summa ju'ila fii taabi'an falam yuksar ilaa yawmil qiyaamati yéen saa sam neen saa bu jaam bi jàppee bàggal mooy tudd naa sax sell yow sama borom ak sax cant maa ngi seer na yow dong yaay yàlla kenn du yow kenn du yàlla ko dul yow maa ngi lay maa ngi lay jéggalu tey tub dellu ci yow neen loolu dañ koy bind ci aw kayit daaj ko ci ab condamné daaj ko ci ab condamné duñ ko dajji ba keroog bis penc lu am solo la ba ci toppit mooy waxtu woo jógee toogee ci jotaay ba bay jóg saa bu toogee jotaay ba jotaay bay jeex waa ne ko subhaanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk yonent bi saa su nee man jalasa fii majlisin fa kasura fiihi lugatuhu wala lagtuhu fa xaala xabla an yaqum min majlisi salik subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk illaa xufir loo maa kaana fi majlisihi dalik saa sa ne képp ku toog ci ab jotaay tey caaxaanam bari fa yéen a ngay cax yéen a ngay lépp yéen a ngay maye lu la nga dugg ca su demee ba jotaay bi jax balaa jóg fa mu toog mu ne tudd naa sax sell yow yàlla di du sax cant di seere ne kenn du buur ku ma yow maa ngi lay jéggalu te dee la tuubal <coughs> neen kenn du ko te duma yàlla dina ko jéggal mboolem bakaar bu amoon ca jotaay boobu mu toogoon subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa anta wahdaka eh, illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mooy baat yi lu yomb la sooy dugg ci jàkka ak soo cay génn ba tey bokk na ci waxtu yi ñaan yi waxtu jéglu yàlla yi solo na jëlee ci soxna Fatimata binti rasulullah sallallahu yàlla ko yàlla te te ci yentu saa salaam nee na kaana ida daxala al masjida salla ala muhammadin wa sallama rabbi ixfir li waftax li abwaaba rahmatik wa ita xaraja salla ala muhammad wa sallama wa xaala rabbi xfir li dunubi waftax li abwaaba fadlika waftax li abwaaba fadlika soxna nee na Rasulullah su ma san dugg ci jàkk ji day njëkk julli ci yon day njëkk julli ci moom ci boppam day njëkk a julli ci yoon bi saa sam ndax ci teg yow sunu yàlla na nga ma jéggal samay bàkkaar te ubbil ma sa bunti yërmande yëpp suy génn ba tey muy julli waat ci yonent bi sallallahu alayhi wax ne yow sunu yàlla nag ma jéggal samay bàkkaar te ubbil ma sa bunti nga ne lii kon kon dugg ci jàkk ak génn ko lépp ci waxtu ci waxtu yi waxtu yi jégalu yàlla yi la ba ca topp ci waxtu yi ñu war a jégalu yàlla mooy gannaaw gannaaw taaya gannaaw taaya yu mujj ci julli taaya yu mujj su àggee nga nga julli ci nga nga njëkk a jégalu yàlla laata ngay laataa ngay laata ngay sëlmal jël nañ ci Abu Bakarin as-Siddiq yàlla na ko yàlla gërëm wax ne yenentu saasam nee na yén saas dafa dafa yén saasam ne ko yow mi yàlla yónni naa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne euh, ñaan goo xam ne dinaa ko ñaan ci sama julli Abubakar moo ko jon saa damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne ñaan ko xam ne naa ko ko dangay mu ne ko xul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaxfiru dunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur dafa wax yoon saas damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne su ma koy ñaanee dinaa ko mën a ñaan sama biiru julli ma ko da wax ne yow sunu borom man di tooñ naa sama bopp tooñ ko bari te kenn du jéggale bàkkaar yi ko may yow ko yàlla nag ma jéggal samay bàkkaar mu bàyyi ko fi yow te nga yërëm ma ndax yow yàlla kat yaay jéggale yaa jërëma ji mu ñaan googu ñu sopp koy wax ci taay ju mujj balaa sëlmal su taay jeexee nga ko door a sëlmal ñu tax wax na ci tënk bu gàtt li teqali diggante tuub ak istixfaar xam naa du fi xaj tey des na ci des ci beneen beneen beneen tomb beneen beneen jotaay li leen teqale diggante mustalaxay tawbati wal istixfaar eh, dañ ci tudd yan na donte waxtu yu jeex na waaye li ci xaj ba ci njëkk mooy jaam bi mën naa nekk ku ñuy jéggal li feek mi ngi sax ci jëfi jégalu yàlla mën naa mën naa jégalu yàlla li feek li feek ngi nuur mën naa nuur ci jëfam ci bàkkaar ba noppi di jégalu yàlla waaye ndax saatuñ ci tuub buddi ko ci bàkkaar niñ ko sa a saat saatuñ ci jégalu buddi ko ci bàkkaar comme niñ ko sàkkoo ci ci tuub tuub nag moom balaa maanaam faaw da ngay buddi ko ca bàkkaar bi ba noppi ak am yéene ñàkk caa dellu ngir ñu mën koo nangul ñaare bu mooy istixfaar sartuñu ca ak nangu sartuñu ca ne faaw ñu nangul la bu dee ta bu dee tuub nag moom def na nangul jaam bi su fekkee matale na sarti tuub yëpp mooy saxal nañ ne ko ñu nangul la ñetteel ba mooy jaam bi mën na jégalu yàlla mën naa jégalu yàlla boppam mën naa jégalu yàlla keneen ku ko soob ci jullit ñi yow sunu borom yàlla na nga ma jéggal sañ nga ko yow sunu borom yàlla na nga jéggal diw sañ nga ko kon jéggalu man koo def soob man defal keneen ci jullit ñi ku la soob tey loolu da nga ci am yool bu mag a mag a mag ci jéggalu yàlla ab jaam am ca tiyaaba waaye tuub nag kenn mënu ko defal ko tuub boppam tuub ni ko def waaye tuubal sa bopp mën ko waaye tuubal keneen mënoo ko moom kon loolu ak ba tey ak wute la kon jéggalu mën koo def sa bopp defal ko keneen ci jullit ñi waaye jégalu nag moom sabab képp nga ko mën defal moo ko defal keneen muy tuub daa bëgg a wax ñeenteel mooy dagan na tuub dagan na ci waxtu yépp lu may nag am na waxtu yuñ fixé yoo xam ne fa lay yam boo fa àggee boo tuubatee tuub gën a nangu mooy jaam bi su àgg ci xaar-xaarle mooy su àgg ci sukuraat su fa tuubatee tuub ga doom njëriñ yàlla du ko nangul ba jant bi fenk sow xam ne àdduna gi tukki foofu amatu fa njariñ jéggalu yàlla nag may sa ko ci waxtu yépp moom mën ngaa nekk ci sukuraat di jéggalu yàlla te su da koy nangu am na ay waxtuñ ñu ko fixé itam euh, comme di ko di ko jox ci ci ci ci ci ci diggante ñaari sujjóot yi mooy booy sujjóot ci julli sujjóot mu njëkk yi ba siggi toog bala ngaa sujjóotaat foofu itam waxtu la yoo xam ne def na te jéggalu yàlla ak gannaaw boo sëlmalee ci julli gi ak yenn barab lu moom ci xeeti barab yi juróomeel mooy tuub euh, dafay joxe dafay indi natiija a résultat togg bàkkaar ku mooy yàlla bu dee jéglu yàlla nag moom sartuñu ca togg mooy yàlla ak jég ak jëf bàkkaar mën nga saa bu ne waxtu mën mën nga mën ci lu ci benn sabab maanaam tub goo xam ne sax mën naa jéglu jéglu ci lu benn sabu mën naa sax jéglu wax mooy xemem ndolan rek xemem ndolan ndolan ci yool ak tiyaaba juróom-benn mooy tuubug eh, jullit ak yéefar ci waxtu jéglu jaam bi mënta jéglul ku dul moroomum jaamum maanaam ab jullit waaye mënta jéglul ab yéefar ab yéefar moom tuub la man waaye mënut a jégalu yéefar bu jégalu yàlla yàlla amul njariñ kon tuub tuub mooy jiit mooy tuub mooy génn ci diine ji dugg ci diine saa ba mën a jégalu su ko defee nag kon des baree bari waaye xëju fi incha allah desee ci beneen beneen beneen yoon rek beneen jotaay lañ koy tëjee rek mooy loolu dafa nañu tudde si mooy juróomi tooñ waaye juróomi lëndëm. waaye lëndëm bu nekk na am na làmp bu koy leeral fa dunubu zulmatun wa siraajuha at wal xabru zulmatun wa siraajuhu as wal miisaanu zulmatun wa siraajuhu laa ilaha illallah wa siraatu zulmatun <coughs> mooy bàkkaar lëndam la làmp bi koy leeral mooy tuub bàmmeel lëndëm la lam bi ko leeral mooy julli miisaan muy màndaxe peese ga ñu peese jëf jam ji ëllëg lenn mooy laa mooy ba nga nekkee àdduna <coughs> siraat jéggi siraat lëndëm la la ko lam ba ko leeral mooy yaqiin mooy am wóolu ci yàlla alaaxir lëndëm la ko leeral mooy jëf ju baax kon ñu ngi leen tàggu fa di leen jox di incha allah beneen beneen jotaay seen émission xam sa diine seen mbokk sëñ Mor Mbacke ci seen rajo Lamp Fall eh, TV ànd ak Laaj Fallou Sill eh, ci ci réalisation bi ak ak ci montage bi ànd sëñ Fallou Fall ci caméra bi ñaan yàlla sunu ma defal ni ba tawfiq xiir ci njub te ci def nu dëgg dëgg taalibe sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangul sunu taalibe wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala abdan qadiman lahu bil fardi wa sunnani washatu kulli ilaasil fardi wal minnani abdan qadiman lahu bil fardi wa sunnani hamdi wa shukri li baaxin la sharika lahu ala mujaawarati al munji min al fitani hadaani allahu bil maahi wa ashkuruhu min xayri shirkin wala xishin wala katani alhamdulillahi rabbil alamin ala muhammadin man bi xayri lbishri akramani usni ala llahi wal ikrama basharani wa kaana lillahu bitabshiri wal amani